dëkkal nañ ma fa waaye ma taxaw rek dëgër këcc te boobu xam naa li ma yore sama loxo xam naa ni am na mani yu bu ma xam naa ne laboratoire bi wax na ko waaye y avait le secret de l'instruction mënu ko woon a wax tey nag mën nañ koo wax ndax lépp leer na tey fi ma xana nekkee benn pareegu ma donc dama leen yëgal ni tey lépp leer na am na ñu waxoon ne Mamour Diallo moo jël aji Sarr ci oto bi yóbbu ko CTO loolu kàcc la tey leer na ne docteur Gaye bi nga xam ne ñëpp xam nañ ne Pastef Kolda la moom nee na man suma xarit maître Gabi moo ni ma am na lu xew am na xale bu jigéen boo xam ne dañuy yegg ci moom ma bëggoon comme couvre-feu bi yow docteur ga am nga droit génn doo ko jëli ñu xool ko nga xoolal ma ko ngir yàlla mu dem jëli ko ànd ak Sidi Ahmed Mbaye mi xam sur bote fi mu nekk سيلا من باي يوبكو سير بوتي خالي بي ген ني يوبكو بيغا يوبو كي تانغ تانغ بي دكتور غاي دي بريليفمون جوكو لابوراتوار بي نيك سيتيو نيكو خولا ما خالي بي لان مو نيك يارامام ناخ امنا لوشي نيك ناخ ديكو تودي ولا ديت تي بوبا سونكو نيوون نا موم خامول خامول سير بوتي ما سوما فاتيك سوما تانغ خوما اجي ساريت فرمي افاسكو سي فيسبوكم du ma ko bindoon ci page am ñëpp gis ko ba Bassirou Diomaye Faye nee na Sonko mosu tànkam ba gis ngeen am na ku fi taxawit beneen militant am porte parole am nee na teg na kaamil dóor waaye sama sénégalais yéen ndek waaye nit bu fenee da yéen a toog di ko gëm rek kenn ku fen benn yoon rek wala su man ñit bu gisee ñuy topp ci kooku di ko gëm bay dee di mu fen fen ba ñëpp teg seen bët demee damay jommi jaaxle ci senegal may oo sama xale sama jarbat samay doom ñu gën a yeewu presse bi gëmloo woon nañ leen man gis naa benn gis naa benn journaliste bu doon génn benn benn certificat médical di ko wane ak benn journaliste boo xam ne émission am chaque jour mu ne xool leen kii da nee na dañ ko laalee yàgg na xale bu jigéen bi waaw xale bu jigéen bi dañ ko laal laal ko laalaat ko kon ba mu roode loolu kon boo nee perte na ndawam mooy kenn laalu ko kenn violé ko xamoo dara yow moom nee na dañ ma yàgg laal viol répétitif mooy laal boo amul bu amul bu dul jeex waaw yow nga yow nga taw jël PV naa gis ngeen de laal bi kii nekkatul nekkatul xale. lool du problème bi problème mooy ndax yàgg nañ ko tëddee wala déet waa ku ñu tëddee lu yàgg kay xanaa di nga roode boo roodee kay doo gaañu boo roodee ku yegg ci yow du la gaañ loolu tey moo feeñ tribunal mu ne tëree dama juróomi yoon joxe bis ñu ne comme gaañuwul rek kon kenn yoole wu ko xam nga loolu mooy waxi dof waaye waxi dof bi xam nga bu gën a mooy kii di kay def te mu bañ yow nga ne defoo dara kii da nga yegg ci moom pour mu leer comme bis bi nga yeggee ci moom ci guddi ga même pas quatre heures de temps ci dégg ngeen ci ñu doon wax lu neex ndax nee nañ ay ay ay ay bis yu bëri xale bi sëyul kenn wax ko de ko da ngay kàcc tey li fi gay wax gay ne bi mu ñëw ci tàng-tàng bi la ne nañ def prélèvement kon xam ne laal nañ ko biñ ko laalee mu ne mu ne ci ngoon ga résultat bi génn résultat laal bi lan la mooy am na lu nekk ci moom lu ñuy wax spermatozoïde vivant mooy mani yu boo mu ngi dund ba mën a am doom nee na mu bindal ko pilule du lendemain waa ñu taxaw ci wër télévision yi émission yi ku gën a riis sa làmmiñ naan waaye certificat médical bi kay seetal na Sonko waaye ñi duñ xalaat seen bàmmeel ñi ñu xalaat seen preuve bi mooy test ADN bi bi mu def ci mani yu buñ ni ci guddi gi jël nañ ko ci yaramu aji te ci kenn rek kenn rek tëddal keroog ci guddi gi dafa tëdd ak moom rek docteur de jëli ko léegi kon dafay di yoon ñu yaakaar condamné ah soo koy fur fukki at dix ans d'emprisonnement

teg ko dil yegg ci kawam mën mën ko loolu man d'accordu ma ci xam nga man bu ko def cinq ans di wàññi waaye sena foo demee prison be am nañu fa am dix ans sonko moo leen gën lu ñu war a sonko lu koy baralee loxo gis nga euh, nduur maa ko baa ko defaan ñu génne ko man mii maa ko acquitté te dañu waxoon ne am na certificat médical bu ko dugal te certificat médical li wax mooy kenn la kenn laalu xale bu jigéen bi waaye am na ñu dem ci presse ba partout naan sutoo nduur am na certificat médical bu ko dugal xoolal nit ñi manipuler nit ñi trois médecins ñoo ko signé woon si ton Ndour ak benn professeur agrégé ñu ne xale bi kenn laalu ko ñu gëmloo nit ñi ni si ton Ndour dem prison audio bi séeréer ñu ne audio bi dugal na ko fi mu ne nañ négocier waaw mu ne man defuma dara ci audio bi séeréer la làkk waaye bu dee xaalis ngeen bëgg ñëw leen ma jox leen xaalis ngeen bu leen yàq sama der bi man xale bi bi du ma ko laal mukk soxlawu ma ko kooku fu mu ne fu mu ne fu mu ne man la nit ñi nañ seen moo tax ma ne Sitor Ndour a ngi nii tëj ko kaso ba bàyyi acquitté ko deful dara Cheikh Yérim Seck ak ñeneen tëj nañ fi kaso ci pour viol viol crime la ku ko def dañ lay tëj bu ñu ko accusé dañ lay tëj mais nu mu Ousmane Sonko rek moom kenn moom dong moom rek lañ fi accusé de viol ñu prélevé sperme CTO ah déposé ko te kenn arrêté ko. ban sentiment si ñàkk teewaay moom dañ ko faral kon Ousmane Sonko ni koy dimbalee ni koy jàppalee ëpp na mu taxaw naan dañ koo bañ.

saagakat yi ak reykat léegi nag yow xalifa xam nga ni lan nga laajoon léegi encore sonn dañuy wax en tubaab dafa ni à vaincre sans péril on triomphe sans gloire kooku am na benn poète bu ko wax ñun amuñu lu ñu neex ci côté boobu bu ñu sañoon Ousmane bu Selemi day taxaw bu yoree baña dugub ñu xam bu yorul baña dugub ñu xam ñu xam yan argument la am waye dafa yombaloon nga ne ñewuma xalé yi dee sama buddu kër ti bo ñewon tey simple ma laaj nak la yow ya def li ndax bis bi ya nga won ya nga won euh, sur Beauté ndax bi nga démé ndax sa wu lañ jël wala jëriñu ko ndax keroog yëg nga ni docteur gay bi nga xam ne sa militant la mo jël sa won euh, aji sar be bobu xamatoon ni patron mo am sekk aji sar ay lu doy waar a ngi bi muy jël si Adji Sarr xamul ni patron ci politique moo am problème ak Adji dañ de ko rek bu yegg ci moom benn xaritam wax ko ko xamul nu mu demee mais mbir yàlla la tey mu ne fekk nañ ma niw ci kaw Adji Sarr loolu la kon kay xam nga ne Khalifa mbir mi leer na nañ mbir mi leer na nañ tin li procureur wax ñun d'accorduñ ci

moom yu tribunal bi ndax Ousmane Sonko moo ni man du ma wuy seeti tribunal man justice sénégalaise amatuma affaire ak moom man wuy du ma wuy jeeti justice man faaleetuma justice ay mag saaga magistrat yi kon xam ngeen ni le premier juin maître luy xew magistrat yi le premier juin dinañ wax liñ gis tey xam nga ne plaidé na ñun démocratiquement ku nekk ni nga ko sentiree ku nekk wax li mu xalaat ci dossier bi li ko dalee ci aji saar ci ne Xadi seen nekkin ca dëkk booba Sweet Beauté xaw ma raay mu neex la xaw ma nu mu tudd Sweet booba la fa doon am en tout cas naag jaamu yàlla la fa doon am ci kilifa gu bëgg a yore réew sori naag toppatoo njaboot gi jaamu yàlla wane exemple xale xale yi waaye koo xam ne ci débauche nga nekk ci lañ lay atte comme ne Xadi Njaay ak ki nga xam ne ne am